waaw jërëjëf Mamran ci question boobu nga laaj mu jëm ci wàllu mauvaise haleine waaw mauvaise haleine moom macha allah am nañu traitement bi dañ ko fi faj fii ci Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall euh, tout d'abord man nag damay demander consultation traitement yi képp ku ma koy jox bala ma koy jox nit dama koy seet ba pare ndax docteur ak sëriñ dañuy faj mais yàlla mooy kiy wéral consultation bi nag képp ku ma soxla bàyyil ma message vocal WhatsApp soo waxee ni ma problème mauvaise haleine laa soxla tout court dinaa la wax ban méthode ak ban principe lañ koy faje ñu defal la consultation bi incha allah buñ la consulter wax la lépp ci sa whatsapp expliquer la defal la un audio correct expliquer la lépp lu nekk sa yaram lépp lu nekk sa wér-gu-yaram principalement wàllu mauvaise haleine bi buñ la ko leeralee ba mu leer incha allahu rabbi nag dans ce cas après ci la ñu doog am jëm nag ci wàllu traitement ci kattanu yàlla. waaw jërëjëf Mame Rane ci wàllu li nga laaj mu jëm ci conséquence su mauvaise haleine yan conséquence la mauvaise haleine am waaw conséquence yi mu am moom nekk na ay conséquences yu doy waar ndax. bëri na ñi nga xamante ni yàlla dogal na am nañ mauvaise haleine ñenn ñi yàq na seen liggéey ñi ci des toog nañ seen kër mënatuñ sax dugg ci nit ñi ndax conséquences yi nga xamante ni mauvaise haleine indil na leen ko. am na ñu bëri ñi nga xamante ni yéen leen doon gis doon leen dégg déggatu leen gisatu leen te fekk ni feebar yu ni mel moo leen dal mais loolu yëpp incha allahu rabbi comme ni ma ko waxee rek nañu jaar ci consultation bi bàyyi leen ma vocal whatsapp ndax man whatsapp laay liggéey képp ku ma bàyyil message vocal whatsapp. ci 77 169 45 45 naa la tontu man sëñ Bara Fall directement wax la nu ñu def ba yàq-yàq yooyu nga am conséquences yi nga am ci sa wàllu mauvaise haleine ñu fajal la ko ba mu dañ. waaw jërëjëf Mame Rane comme ni nga ko gisee nii. lii mooy traitement bi nga xamante ni mooy faj mauvaise haleine bi ci biir bi. ñu bëri seen mauvaise haleine fu mu gën a dangereux mooy ci biir bi biir bi moo ëpp danger ñi ëpp ci ñi ko am ci biir bi la. li lii nag moo koy faj bu fekkee dafa am ulcère malade bi dafa am ulcère wala dafa am estomac wala dafa am ay reflux gastrique maanaam wala dafa am hémorroïde wala ndoxum siti wala mu am ballonnement de ventre ngelaw bi nga xamante ni mooy jóge ci biir bi di dégager ñi ci ëpp ci maladie loolu la ku ci amul ndoxum siti am nga hémorroïde ku ci amul hémorroïde am nga ballonnement de ventre ku ci amul ballonnement de ventre dafay fekk ni li nga xamante ni dafay am ulcère wala mu am estomac yooyu yëpp dafa nekk li nga xamante ni moo nekk ci biir te comme ni ma leen ko waxee dans la consultation ci la ñuy mën a xam sa feebaru mauvaise haleine boobu fan la jóge macha allah en plus dafa ànd ak lii ngeen di gis li nak moy ñi xamanteni mauvaise haleine pour ci la nek te consultation bi comme ko waxé sank li bu féké ci gi la nek ci bëy yi ci signe bi ci surtout ci walu li nga ci lamine bi wala ci amygdale amygdale ndax am ñi xamanteni fièvre amygdale lañ am wala goitre ñi am goitre wala amygdale bi koy carrément am ci ñi xamanteni nak lii ngeen gis ni cuuraayu seytaane la ñi nga seen bos liggéey la dañ leen liggéey am na bain mystique bu leen di jox ñi nga seen bos su fekkee dafa am dafa am liggéey ndax am ñoo xam dañ doon liggéey seen liggéey dox nit ñi bëgg leen seen kilifa bëgg leen seen client bëgg leen seen partenaire bëgg leen ñu am trop les relations humaines dem nañu ba amatuñu nit ku leen wax ñaata dem nañu ba am amatuñu gisatuñu sax ku leen di nuyu wala ku leen di fay nuyoo macha allah lii dañ lay may benn bain mystique comme ni ko gisee nii bain mystique la ay aaya alxuraan lu mu lañ ko liggéeyee lépp lu ñu xam mboot bi ci alxuraan ak xasaayitu Sëñ Tuubaa moo ne ci biir moom lañ ko liggéeyee sangat la alxuraan kese la macha allah lépp lu nekk ci biir incha allah rabbi dañ da koy fajal ba loolu dañ définitivement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem comme ni ma leen ko waxee rek euh, mauvaise haleine dafa yaatu am na ñu xamante ni seen mauvaise haleine dafay dem ba def leen sax odeur odeur corporelle maanaam seen ñaq day fort dañuy am à tout moment ay rataxitu yaram yaram bi day a tout moment day génn xet ñi nga xam te ne day seen pokotaan ñenn ñi day génn seen tànk muy buuj am ñoo xam te ne dafay dem ba daf leen xetu xetu odeur ci jigéen ñenn ñi sax ay dañu am odeur vaginale waaw loolu yëpp itam am na traitement spécifique comme ni ma ko waxee ñi nga xam te ne odeur corporelle am nañ ma ko signaler ci audio whatsapp buñ ma waxee nañ odeur corporelle la am rek man dinaa leen mën wax nan la consultation bi mën deme nan lañu mën a def ba jàppal leen ci loolu ba mu mën a dañ carrément te bi feebar bi wàlle la ñi am mauvaise haleine il faut faire attention boo leen ko fajul da ngeen koy wàll seeni soxna bu dee jigéen da nga koy wàll sa borom kër te feebar mauvaise haleine day wàll da nga koy wàll ba di ko wàll say xale ndax potu ndaa yi ngeen di naanantee ak yu demee noonu ndax ay bactéries la maanaam benn nit bu ko amee ci kër gi soo lañ ko fajul wala su fajuwul wala bu amul toppatoo bi ci war mën na dem ba wàll ko ay jegeñaaleem te loolu war na mën a nekk luy ñàkk ndax waaw incha allah traitement bii moom kuñ ko mus a jox ci àddina soo ko jëfandikoo yàlla def ci tawfeex comme ni ma ko waxee sànq sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral yàlla mooy wéral incha allah ci kattan yàlla ak baaxam ak dem képp kuñ ci yàlla booleel incha allah comme ni ngeen ko gisee traitement complet la traitement général la wax naa leen lu koy faj ci biir bi lu koy faj ci put bi lu koy faj ci gémmiñ gi ak surtout lu koy faj ci wàllu ulcère estomac ballonnement de ventre ak surtout wàllu ndoxum siti wala wàllu hémorroïde lépp lu ko ci nit am ak fu mu mën a jóge ci yow incha allahu rabbi xefe ñoo contacter seet si ñu bàyyi ñu vocal whatsapp directement ci 169 45 45 77 169 45 45 naa la wax naka ak nan lay demee ci kàttanu yàlla incha allah nii ngeen koy gisee nii lay demee am na sachet yooyu naan pour biir bi am na looy broso am na luñ la koy fajal ci rab ak jinne a ngelaw seytaane ak cat ak làmmiñ ak rab ak jinne ak liggéey ak surtout ni nga xam te dañuy kortu nit ñi di sànni nit ñi lu bon di sànni ni ñi xet loolu yëpp lañ lay may ay ñaan ba mu dañ képp ku ñu liggéey képp ku ñu sànni njibar képp ku ñu kort képp ku ñu def li nga xam da ngay am xet di la dëdd léegi ay nit traitement complet général bi moo nekk nii nga xam odeur nga yaa xam da nga am odeur corporelle yaa xam da nga am odeur mauvaise haleine généralement lii mooy traitement généralement bu koy dindi ci sa yaram définitivement incha allah ci kattan yàlla ak baaxam a yërmandeem képp ku ko soxla bàyyi ñu message vocal whatsapp dinañ xefanoo su jotee soo mënee ñëw Guédiawaye arrêt Doubalès ñu jaay la traitement bi alhamdulilah soo mënta ñëw ñu defal la ko livraison à domicile incha allahu rabbi mais tout d'abord def leen consultation pour ngeen mën a xam seen jafe-jafe mën a xam seen wàllu wér gu lan moo ci nekk ñu defal leen un traitement adéquat fajal leen seen wàllu wér-gu-yaram boobu lépp baax lépp xéwale lépp taw